droit électoral est-ce que Ismaïla Madior Fall dans son cursus d'étudiant ou ou d'enseignant mm -hmm. est-ce qu'il a enseigné le droit électoral à l'exception à l'exception du système électoral bi nga xam ne dañ koy réduire à sa plus simple expression mooy le mode de scrutin lu bëgg wax foofu loolu mooy la pas plus mooy droit électoral dañ koo jàngalewul ci université yi ok droit électoral Euh, am na de boo xam ni la preuve ñu samay xale yu bëri dama yeew ñi may définir leen lan mooy kii di ma man leen moo man leen man du ma tombé ci piège maajoor ay dafa bëgg naan que njaga di justifier ba xam expert la wala du expert mais man maajoor moo la gën a xam ni <laughs> daaw Union européenne par Union européenne de Dakar Union européenne de Bruxelles mm-hmm. j'ai compéti avec d'autres experts ñoo xam ne c'est des docteurs en droit ma gagné poste bi j'ai été dans boo xam ne moom si boppam contacté nañ ko Ismaïla Madior pour war ko rencontrer mm-hmm. naa dellu ci yeneen at yoo xam ni avec toujours l'Union européenne boo xam ni j'avais cette qualité en fait. mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a en fait ci Sénégal ak ñi war a jël décision bi donc Ndiaga nañ ko diaboliser je ne tomberai pas dans ce piège parce que man tey euh, damay am na Sénégal fu muy toll. Mm-hmm. man du ma gànc xam nga olof moo ni xayaan ku dégg séeréer am na affaire yi fu muy toll l'enjeu dafay dépasse suñuy bopp ñun mhm. tey ce qui se wax naa ko sama texte bi ma koy tontu ni ko man bokkuma ci ñi nga xam ni jàpp nañ ni seen àdduna day tukki mois de mars 2024 s'ils perdent le pouvoir c'est fini muy ñoom ak ñoo xam ne nekkuñu tax pouvoir bi en fait et ils sont de tous bords en fait c'est ça la vérité tey du problème mu Karim euh, du Karim problème mu Sonko tey problème mu rétablir en fait suñu droit la maintenant pour revenir li tax man ni li tax man ni leen man j'ai qualité à agir. man tey bu fekkoon dama dama tëb. mais est-ce wul rek nga jéem a agir yow. Momadou Momadou Momadou man sama lan laa bind dama ni man damay dinaa def recours maa ngi invité les partis politiques légalement constitués. voilà mhm. est-ce que tudd naa coalition parce que les coalitions n'ont pas d'existence juridique. Mhm. est-ce que tudd naa candidat. donte tax ci élection bi ku dem jëli fiche war nga mën a am qualité à agir. mais man maa ngi ciy woo parti politique yi ak ñan. ak les membres de la Sénat. les membres de la Sénat ça fait kon xam de Sénat moom y' a aucune chance que que ñu rejoindre. boobu boobu kii non non déedéet forcé ci kenn parce que ñoom xam naa la ñu ci bëri vraiment c' est des mhm. gens très nobles ak yooyu. voilà léegi euh, maintenant xam nga Momadou. Mhm. Issa Madior mooy kan je le respecte beaucoup. man damay toog rek ñu xuloo ñu ngi jiw xaalis man leen ak lu mu mën demee Ismaïla Madior c'est un bon constitutionnaliste. Mm-hmm. mais il faut mu yam place am. Ismaïla Madior il est constitutionnaliste moomu euh, euh, maître tontu na ko keroog droit constitutionnel la jàng xamul droit pénal xamul droit administratif xamul leneen ak leneen. Euh, professeur Ndiak Fall sur l'histoire la contumace le caractère précaire la contumace tontu na ko bu tontu ko dax dafa wax dëgg mm-hmm. léegi mais Madior mooy kan ba nga xam ni tey pour pour moom lépp domaine du droit yëpp xam na ko or le droit électoral maajoor xamu ci dërëm parce que fi mu ma doon interpellé nee na ma parce que bee passé xala xam naa xel moo ci dem mu ni ma non c'est parce que tu étais électeur euh, élection la woon moo tax moo tax en réalité certainement mu mën a ko ma ne ko mais yow li nga invoqué noonu ma xaaral ma préciser la dara ma ne ko yow qualité boobu à agir bi électeur bi am dans le ma ne ko xam nga fan la yem pour contester en fait Euh, maanaam opération état ñu def élection ba pare nga contesté beneen bi mooy lan mooy ñu fal bureau conseil municipal ak conseil département nga contesté ko. Mhm. alors que man li ma doon contesté c'était un acte préparatoire ci laa ko ni bul dugg terrain boo xamul.